nu ñëwee fekk leen ci rek mel na ni fekk nañ fi waa Touba yëpp ndax yéen suñuy kilifa te gaa yu baax yi lii ñu fi wax kenn lu fi wax lu ko gën a kawe yàlla dafa dogal Cheikh Ibrahim bi ñuy ñëw mu boole noog sëriñ Xaadim Kebe jàngkat mi ngi si yoon bi di ñëw ñu bëgg koo xaaral bi rek su egsee jëfe digal loolu nga xamante nii moom la sëriñ bi bëgg ndax yéen soo leen toogee yéenay suñuy kilifa yéenay suñu lépp du nu am kàddu ci seen kanam mukk du nu kawee ci seen kanam mukk ñu bëgg ngeen def rek li leen soob ba kanam sëñ Xaadim Kebe di egsi si jàmm incha allahu rabbi su ko defee ñu yëkkati xasida yi jërëjëf ñes ñu baax a baax weer wu màgg bii nga xam ne mooy rabi waaqe di rakki gàmm di leen ci waxtu bi waa di leen ci heure bi di sant yàlla bu baax di nuyu suñu sëriñ al Musanna ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax sant yàlla war nañu ban nuyoo ban àndee Baye Khalifa ni sëtam Baye Khalifa nii maamam ni Sayyidatu Umm Kalsum moo njëkk tariqwaan ci doomi moo moom ak Cheikh Karim Mbaye nii ñoo bokk benn baay di Mawlana Cheikh Ibrahim nekkaat tamit doomi Cheikh Sandem moo ni boole ci jotaay bii nii ñu ñëw fi fekk fi waa kër Mame Babacar Thiam ñu ngi sant yàlla nag dafa am benn waay loolu yàggul noonu sëñ Daara Ousmane Ndiaye moo ko nettali mu ne benn bés papa Cheikh daf doon tukki ci àllu Saloum bi otoon bi laal benn xale xale bi yàlla daf bakkanam moom moom yàlla moom mu ne borom kër gi kum ray baayam moo gën a naqat lay ci dëkk bi ndeke taaliba baay la waaw moo gën a naqat lay du jéggi la dara waaw boro ba nga xamee ne oto bi suuf laal na xale bi papa Cheikh wàcc ba mu wàccee ñu dugg ci kër gi jëf way jur bi way jur bi ba mu yëgee ne oto suñ seet bi moo ko laal ba mu génne àddina mu ne yow yàlla maa ngi ñaan oto suñ seet bi yàlla na rey samay xale ndax muy ñëw fii ci kër gi ndax suñ seet bi ñëw ci kër gi waaw oto bii yàlla na yàgg di rey ndax suñ seet bi ñëw ci kër gi sant sa xale bi loolu sant yàlla boo déggee ma wax loolu dafa jëlu sam baay ci lii maam baay mu nga xam ne mooy borom bés bi suñu yàlla mayee ñu bokkoo feex sëriñ mbay mii nga xam ne laa mu ne xaalam bi la di jaata Mawlana Cheikh Rañes bëgg Mawlana Cheikh lépp lu lëndëm moom moo koy leeral ku ne xam ne borom dégg na dégg na ma lépp lu lënt moo koy leeral lépp lu jafe moo koy yombal dëgg-dëgg bu ñëwee bokk ak ñun jotaay dëgg-dëgg sant yàlla lu bàyyi wax ne xaribi madiwaashi wa man ali fanada bi mahmoud xayraani yi bàyyi mu ne xaribi samay way yëpp madiwaashi mooy tagg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa man ali képp ku ma jur fanada danaa la ooyee bi mahmoud yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko soog doom li nga wax mu ne war walaw balagu ba matul alfa junne doom wa saada wala lu ko ëpp Seydina Afranir naa leen tuddee asmaaw xayru say ni tur ko gën di sang yi. Serigne Mbaye mii nii bu ñetti ordinaire wàllu yàlla àqal lépp lu mu dogal yàlla daf koy def képp ku mu àndal am na tawfeex ñu ngi wax waa kenn mënu ko dara kii nii lu koy protéger jëmmu saa yi te lu koy protéger bët mënu koo jóg ma laa na jëmmu baatin bi waaw mooy caatu Mawlana Cheikh Ibrahim nekk sëriñ bi borom dëkku bëggu dara moo tax ñu doon joxe addee am nañ sens waaye yéen ko ci joxaatul am ngeen sens. ñu ngi ñaan yàlla Mawlana Cheikh Ibrahima nga xam ne ku mu tëggu nga fàttali ko waa ji waxee naan idaa nahnu minnaa min kutri nasaran sawaa'un alaynaa man yumut wa man yahyaa yal na ko yàlla def ci mbooloo mi. bismillaahi rahmaani rahiim wallaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad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 أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الامين هو اصدق القائلين المصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وفيهم هم المصدقون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن طلحة جرى وأمسد وعباسة وجعفر والعقيل والعبد الولدين وفاطمة وخديجة وعائشة وإشاء أمهات المؤمنين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين وعن الصابين وتابع التابعين لهم بإحسان لا يمدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المغيبين الطابع لهم بإحسان لا يمدين اللهم اجعل القرآن عاصما وبين قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرب به صدورنا ويزكي به امورنا وفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القران الشافعا مشفعا مطينا ولا تجعل ما الى متدفقنا اللهم اجعل لنا ولا تجعل علينا ولا امرقنا تلاوته اللهم نعوذ بك يبقيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا الى غفرته ولا أمنا إلا قريتا ولا ضئنا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا عدوا إلا كفيتا ولا قائبا إلا رضا ولا عادي إلا عدمتا ولا فاتن إلا أخلتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا عيبا إلا سترتا ولا عذيرا إلا إذرتا ولا kon nag kilifa jotaay bi du kenn ku dul yow ñas kumba Abdallah déplacé la nag yombul ndax toll nañ ci jamono foo xam ne waye waye yi sax amatuñ jot waxatuma laa doomu baañas ginnaaw bu nekkee doomu baañas di sëriñ boo xam ne dafa contribuer ci heure bu la société bi soxlaa nga génn heure bu sénégalais yi amee lu leen naqari nga taxaw teewal leen kon da ngaa jéggi sëriñ ñaari tànk nga fi taxawee kon ñas ku ma Abdallah boo téyee fii day war ñu tatagal la day war ñu sant day war ñu bëgg di xam ne Cheikh Ibrahim def na lu rëy ndax déplacé Cheikh al Islam andi ko sa kër juróom-ñetti fan sa waajur bu jigéen laaxoon ah wàccoo naag waa këram de ndax yow foo dem yiw rekk a fa ne bu dul sax doomu Cheikh al Islam waaye mbaax gi yiw gi. teraanga gi ci yow ak xam-xam bi ak ak dal gi ci yow loolu rek mun naa defar doomu aadama fekk si juddu wa ñes ku ba ginnaaw bi nga amee juddu da ngaa fexe ba am sa jikko bopp am personnalité civilisé xool leen sëñ bi tegle tàggam toor fakal la civilisation ci moom la fekk baax dama koo xam ñes yàlla nga am jàmm yàlla nga gudd fan li say maam ak say baay liggéey ci réew mi yàlla nga liggéey lu ko raw yàlla tegul benn bunt bunt yonent rek la tëj lu waaye defoon rek mën nga koo def yàlla nga def lu ko raw barki yonent yàlla Muhammad bu ma noppee ci sëñ bi te yàlla bu ma noppi ci yow xanaa ma tënk rek ci yow dañuy sant ki nga xam ne tamit moo waral jotaay bi muy Cheikh Ibrahima sëñ bi gone du la yëkkati de ay koppar du la yëkkati ndax da ngaa teel da gane àdduna rek tedd kon yii xew bees mënu laa damay faral di wax naan képp ku lay wax dara ngir teraanga àdduna wala mu la koy def fayul ndax ñaar rek a mën a am mu ñàkk fekk si la wala nga am fekk ko rek ñaar yooyu rek a mën a am moo tax ku lay def dara wala mu la koy wax ngir teraanga fayul sëñ bi yooyu déplacé wu la bàyyi daa defar jikkoom. di taalibe xàqan bokk ci yéen jox leen léppam lu mu am ak ku mu am yéen la ko jox kon nag bu leen déplacé ngeen ñëw fekk si ko jaanam wàcc na son serpent est descendu tubaab fakkaat la amul woon ku dul ndeyam nag muy yaayam ji la amul woon ku dul moom maa ngi koy wax barki démb ne ko bu doon xaalis wala ordonnance wala ay garab mooy faj sa yaay kon du dëddu lu ne def na ko ci fan yee maire bi tawat na ñii woo ay docteur fii biir Kaolack ñii yéexantaloog disponible luñ mu jël ay docteur Dakar même pas trois heures de temps ñu yegg si toppatoo maire bi delluwaat kon kooku joxoon na wàccuwaay yaayam nit nag boo joxee sa wàccuwaay sa sa yaay jox wàccuwaay say sëriñ bañ déplacé wu ñëw seet si la waaye yow jaratoo ñaanal toi fa def nga lépp kon nag Cheikh Ibrahim ñu ngi lay wax gàcce ngaalaama kàddu yi ma yëkkati nag du kàddu xarit du kàddu mbokk am na yuy gën a foor yooyu muy dëkkandoo dañoo dëkk plus de vingt ans lépp ñaar fukki at nag koo ko dëkkal mun ngaa yëkkati ay kàddu seere ci moom ku baax la ku am jom la ku am personnalité la ku nangoo liggéey la ku dimbali ay dëkkandoom la jàkka ji moo fa def climatiseur yi morgue ba fa ne moo ko climatisé moo fa lal moket yi moo fa def ay ventilo di def àjjuma di jot yóbbu fa ay ndox ak ay xéewal kon nag bàyyi wàccoo nga ak say wayjur wàccoo say mbokk wàccoo ak say sëriñ wàccoo ak say dëkkandoo wasalaam. te li nga wax dëgg la dama koy nettalil tout le temps ñi may toogat ma ne leen gis naa ku tabe waaye ku tabee ni Mame Baye gisuma ko naar yi sax dañuy daw di topp ci gannaawam ngir li mu leen di jox man ba ma ko xamee ba léegi mos ta dëkk ci kër lu du rek ci la dëkk. te bi may ñëw dama amoon jafe-jafe passeport ndax dañ ko sàccoon Dubaay dama fa am problème passeport lu lépp nu ma ñëwee moom moo ko lijjanti yaakaar naa ba ma xaymaa li mu def ci man mat na 2 millions 500 mille pour sama yoon pour ma ñibbisi rek kon kooku bu ma nee Passy mu woo ma téléphone ne ma dama sama yaay dafa génn àdduna ma am programme bëgg ñu jàngal ko kaamil ma ne ko loolu seex bi jarul nga ciy tegati leneen du man kenn danaa ànd ak sama mag muy Cheikh Tidiane danaa ànd ak sama yaay ñëw na samay mag bu jigéen ñun ñëpp ñu ànd door ñëw dëgg-dëgg lépp lu ñu wax ci màmbaay rek yaa baax moom bu ko xasee wax nit foo la ñuy yem mënatuñoo wax lu dul loolu loolu lañ doon seede wasalaamaaleykum wa rahmatullah di leen di ziyaara gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mboolem sant ñu santee ko ki ñu fekk ci lëndëm dugal ñu ci leer ki xotti suñu xol def ci yàlla ki yàlla sédd muy seddale muy Mawlana Cheikh Lislaam Alxaaj Ibrahima Niass maa ngi jaale ñi nga xam ni ñooy fami Cheikh Ibrahima Ndiaye di ñaan suñu yaay ji yàlla dugal ko ci ajjana yi kawee te yàlla na yërmande wàcc ci moom ndax doomu aadama ci kaw suuf yàlla dafa am ñaar yum teg ci kaw suuf yàlla dafa ne rahmaan yërëm naa mboolem seen ci kaw àddina looloo waral doomu aadama di dund ci kaw suuf jaamuwoo yàlla liggéeyaloo yàlla lum tax mu jox la xalal liggéeyaloo yàlla li tax mu bàyyi la teraanga di la topp nga gis keneen koo xam ni mu ngi liggéeyal yàlla sonn ci yàlla te yàlla joxu ko dara loolu nag yërmandeb yàlla la ci biir àddina mooy ñëpp xeefir beeg jullit beeg ñépp la boole yërëm waaye yàlla tamit soo xoolee foofu dafa wane li nga xam ne moom la wax ségrégation dafa na raxiimi jullit daal ca àllaaxira lay yërëm jullit nag mooy kan mooy ku ragal yàlla kuy jaamu yàlla kooku mooy jullit nit ñi tamit danañuy bàyyi xel dama leen koy wax na leen jullit mun nga koo nekk te doo ragal yàlla ragal yàlla mu ngi àgg ci doomu aadama bi soo demee ba nga xam ne sax dem nga bay toog bay war a njaaloo ci jigéen sa xel na yar ci yàlla fa nga ko nekkee nga jóg na allahu akbar wala nga tudd yàlla wala sa fit tudd yàlla kooku de ragal na yàlla waaye am na jaam boo xam ni mun naa def tawteef tooñ boroomam nekk ci tooñ googu te du ci xalaat yàlla mukk kooku nag mooy bokkaale ndax yàlla dañ koy ragal yàlla da koy xam parce que soo xamut yàlla dangay ngay delluwaat nga xool nga ne ana sama baay sama baay ana baayam sama baay boobu ana maamam gisoo leen de ñoom ñépp dem nañ barsax kon yàlla dañ koy ragal waaye dañuy gëm yàlla tey nag suñ waajur ji dem dara mënu koo sawe lu dul ñaan yàlla rekk moo ko mën a sawe te alquran ji seetaan naa ci tele nit ñi nga xam ni tey ñu ngi sama kër maam Cheikh Ahmadou Bamba bari fa lool nga xam ne tey ñoo ñu di ootee na ñoom nitul islaam lañ waaye di xeex nitul islaam man gisuma ne yow jullit nga parce que yow ki ngay xeex ak mu ngi wax ashhadu an laa ilaha illa yaa ngi ko gis mu ngi dem ci jumaa ja yaa ngi ko gis mu ngi ubbi kaamil di jàng lépp lu yàlla sant sa mu koy def yow muy toog naan ahlu tariqa ñooñu ahlu bidaa lañ te yow mii nga xam ni yéen sos loo xam ne kenn xamul fum mu jógee yaa ngi am ñu la topp soo jógee ñu tëb teel la sa yére sooy dugg ci oto ñu ubbil la waa loolu lan la xanaa loolu du sëriñ <laughs> ba pare ñu lay dajaleel di la cotiser dégg naa ñu naan alquran dafa xaraam mhm. nit génn àddina nga koy jàngal mhm. ñun lan moo gën a rëy ci ñun lu dul alquran mhm. amul leneen lu gën a rëy ci ñun lu dul alquran alquran rek la ñuy jàng maam Cheikh Ahmadou Bamba ñu moom xam nga am lu wax parce que seen daal koy jaay ci ñu def ñeneen ko sombi xam

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر

إله إلا الله رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين fay na meeku yool bi njëkk ñuy jàng ñu paree ñu bantu ak def fàtte ñett foofu ñett faa fàtte am mboolem koo xam ne fekk na ko ak ku fekk bismillah boppam mhm. xam ne heure bu nekk mhm. nay jéggalu yàlla xam ne fii lay mujj këram dëgg mhm. na ko yàlla yërëm ñu ngi koy jaale famille bi yëpp di ko jaale ñoon bàyyi ñoom Ndiaye ñii seen yow bu nga xam ne yaay seen taal ñu ko jaale am nañ nag rafet njot te mu ngi àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne dëj soo gisee nit ñi ñuy bëgg di ñëw di gunge te dafa am ñoo xam ne am nañ ci ñoo xam ne yërmandeb yàlla topp na le mhm. te ñooñu suñ àndee ci dëj ba di dem rek mhm. boobaa dafay tax ñu yërëm néew ba waaye dafay taxaale tamit ñu yërëmande ñooy dem mhm. kon nag alhamdulilah ay wàllu yàlla am fi ñoo xam ne ñu kon gëm nañ ne yaay ji yaay ji yàlla may dara la yàlla yàlla yokk leeram fam ne yàlla yàlla na ko def yaa rabbi ci barke yonent bi asalaamaaleykum fa diine yëpp fekk fi nitu yàlla yi fekk fi waliyu yàlla yi fekk fi caatu Cheikh euh, Ibrahima Baye Niass fekk fi tamit ay wóllëreem ay doomu ndeyam ay doomu baayam vraiment ñu nekk ñoo xam ne daal ñun daal suñu xel dal na trop trop trop trop trop ñu leen di jébbal kàddu gi nag ci euh, turu diine lislaam bi yëpp yëpp yëpp ñu koy euh, euh, jox suñu xarit suñu sëriñ suñu la di suñu yaakaar tey ak ëllëg muy ba muy Baye Mbaye MC man sax MC bi dama koy rusa wax léegi waaye daal dinaa ko wax rek forcé ko rek wax ko MC Niass bisimilahi rahmaani rahim sëñ bi ñu bëggoon la bàyyi nga nuyoo après vraiment wax sa teewaay bi fii ak kilifa yi yi nga yëpp lan la woon. waaw alhamdulilah alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mboolem sant ma sante ko Mawlana Cheikh al-Islam Alhaaj Ibrahima Niass maa ngi wax uh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla yàlla yërëm kii nga xam ne mooy way jiitu bi Faat Diouf mi nga xam ne tey moom mooy yaay Cheikh Ibrahima mm-hmm. su ñu waxee Cheikh Ibrahima Ndiaye mooy ki nga xam ne mm-hmm. baay njaay lañ ko gën a xamee ñu koy wax mu bëgg Cheikh Ibrahima Niass mm-hmm. nekk taalibeem tey waajur gi nekk suñu waajur yàlla def moom Baye moomu yàlla def mu bëgg ma lool nekk ak man guddeeg ba cëkk kon tey su amee tiis ñun tamit dañuy ñëw bokk ak moom tiis mm-hmm. googu waaye bañ ñëwee tamit mm-hmm. fekk naa fi sama ñaari doom mm-hmm. ndax sët lañ ci man doom lañ ci man muy Cheikh Ibrahima Ndiaye moom mu jàng xatma bi kekkakati Cheikh Khalifa Dem mu ngi noonu ñu fekk leen fi waaye fekk nañ fi mbooleem ñi nga xam ni tey ay mbokk taalibe lañ Cheikh Haafis fekk fi waa kër suñu baay Babacar Thiam kon loolu mooy wane ne bokk nañ ci li nga xam ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu bàyyi waa kër sëñ Touba fële kër sëñ Touba ñu ngi foofu. kon sant yàlla ci loolu lu ñu booloo nekk te duñ tasaaroo ndax ay jullit dañuy bokk lu ñu moom lu ñu moom mooy lan lislaam lañ moom kon diine lislaam soo leen ko bokkee doo leen tasaaroo mukk looloo waral nag ñépp bàyyi seen ite bàyyi seen lépp ñëw teew si fii ci dëj bi nii ñaanal si ki nga xam ni moom mooy soxna Fatou Diouf kii nag mooy taawam mooy maguñoon ñoon bàyyi waaye maa ngi wax ne ba mu ñëwee accueillir nañu suba ba léegi sonn na di def lu nekk wax dëgg yàlla macha allah waaye xam naa ne loolu yëpp ak nijaayam gii kontaan rek lañ def ndax nit génn na àddina te yàlla may ko mu gis ay wàllu yàlla ci këram nit génn na àddina gis ay wàllu yàlla ci këram te ñun wóor nañu ne ñun ñaanaluñ suñ bopp pour nekk wàllu yàlla waaye yàlla ñu ko may ndax suñu baay moo ko ñaan yàlla te yàlla du ko bañ mukk kon meer bi am na cër ci yàlla moo tax mu am tey waa Médina yëpp ak waa kër Serigne Touba yëpp ñu ñëw te leneen li tamit ci dëj bi dafa am leneen lum ñu defal li ñu bàyyi defal mooy ñu gisante ñun ay mbokk sëriñ mm-hmm. nuyonte ziyaarante yokkute la nekk ci ñun mm-hmm. ndax dañuy wax a ziyaara a ziyaadatu mm-hmm. kon nag ñu ngi sant yàlla ci jëf jooju nga xam ne tey occasion bi kenn du wax ne da ngay ñaan dëj am waaye dëj bii de may nañu tey ñu gisante ñun ay mbokk sëriñ nuyante bëggante te yàlla tax loolu sant yàlla la bàyyi nag ñu ngi ko koy jaale waaye ñu ngi koy ñaan yàlla la di ko wax fa mu nekk ci Dubaï na muñ. Mhm. ta xam ne yàlla yàlla moo moom jaamam kenn du xëccoog moom ndax ba muy ñëw moom bàyyi moomu kenn tàgguwu ba ñuy jox yaayam ci àddina kenn tàgguwu kon yàlla lu ko neex rek lay def te moo ko jël dañ koy sante métti na ci xol waaye dañ koy sante yàlla kon nag looloo ñu taxoon a teew ñun ñëpp teew nañ kon nu ma ko waxee dégg nga dan jéegoo ngi nii Fafa ngi nii yaa ngi dégg Babacar Touré ngi fii euh, doomu euh, Bokar Julde doomu Ba euh, Bokar Samba Dieng yaa ngi dégg yaa ngi dégg seen buzz ah Cheikh ñoom ñëpp suñ tuddee mm-hmm. ah kii info ñoom ñëpp mm-hmm. ñu ngi fi mm-hmm. suñ tuddee dañuy juum waa Thiès Ndaween waaw sama mbokk yi Cheikh Havis ñoom ñëpp ñun ñëpp ngi fi kon suñ liimee rek dañuy juum waaye tant bi ba léegi jeexul ñun ñooy delluwaat dakaar rek waaye suñu mbokk yi waa kër Cheikh Ahmedou Bamba ñëw nañ sànq foofu la ñuy teg tegaat xasaay di mu jëm ba ca kanam lii lañ amoon pour wax jéego lataa tàggatoo rek euh, imam ci kàddu yi nga xamante ne moom lañ bëgg nga ñaaxaat ko askan wi mm-hmm. euh, ci taxaw bi nga xamante ne doom noonu la war a taxawoo waajuram mm-hmm. euh, ñu gis taxaw bu rafet bi nga xamante ne njaboot gi noonu la ñu taxawoo seen waajur ñu ciy gërëm bu baax a baax a baax suñu frère Bekaay moom mi nga xamante ne mooy taaw waaye di gërëmaat bu baax ki nga xamante ni moo di mam Baye parce que li nga wax sànq rek waajur bu ne rek ñaan nga yàlla am doom ju mel ni yan kàddu ngay ñaaxaat ndaw ñi ci seen waajur Euh, ndaw yi lu ma leen di wax Sénégal gi ñu dëkk yar moo réer te yar il faut ñu delloosi ko bu njëkk ba sa doom da doon génn ci mbedd def dara ku ko xamul jël ko caw ko ndax bu mu ko defati waaye tubaab yi dem nañ ba nit ñi jàngkatu tubaab yi bëgg ñoo imposer li nga xam ne bokk ñoog ñoom aada bokk ñoom diine kenn waratu la laal kenn kenn waratu kii ñun ñii di wax ak yow. ci daara lañ jaar dañ ñoo dóor ba ñuy bëgg dee. suñu yére yi dafa doon tilim. bay teeñ. te tey ñu ngi nii. sant yàlla. waaye yar mooy lépp. te yar doo ko commencé lu dul ci waajur. waajur nu mu mënti mel waajur la. bëgg waajur fonk waajur. mooy tax nit ki dem Baay Ñas dafa am lu mu wax. Baay Ñas nee na bu njëkk. mooy yàlla. yàlla gannaaw yàlla. Mm-hmm. yonent bi. Mm-hmm. gannaaw yonent bi ndey. wax sax. Mm-hmm. wax àggu sax ci dafa ne yàlla. après waajur. nga dem uti sëriñ. ndax xam nañ ni ci yonent bi lañ branché woo ñun ñëpp. ndax mooy dinaa moo bi. ndax fiil buy génn rek. ci dynamo ba nga jógee. kon kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon waajur. Baye nee na da ngay am waajur ba pare. dem soog a uti wasila. kon maam Baye lii mu def nii. defal ko waajuram wane na ne bëgg na waajuram fonk na waajuram ndax amut lu dul waajur nit amoo lu dul sa waajur soo amee ay milliards sa waajur lekk ko xamal ne képp koo ko jox tamit amul njëriñ soo amee ay milliards say mbokk lekkuñ ci xamal na loo mën a am du dara moo tax sant yàlla ñun de ñu ngi ñaan yàlla des na nañ suñu waajur mu ngi dund ba tey lu ñu am jox ko ko su ma mënoon a am ay milliar yi milliards tamit xam naa ne doyewu ko dara waaye képp ko ko mu koy gis sax noonu lay nit di mel ci waajur kon nag maam Baye gis nañ taxawaay bu mu taxaw ndax fonk waajur moo tax mu tabaxal ko lii kon nag ñu ngi koy masaw di masaw kalifaam gi nga xam ne mooy xalifaam muy béykaay jërëjëf di wax maam Baye rek ne ko incha allah na gën a góorgóorlu te xam ne dara yàggut incha allah jërëjëf mi jaay la ci moom waaw bëggoon na ci sànni bi jërëjëf yal na taxawaay yàgg amiin xam-xam bi jëm kanam amiin def nga alxuraan wax dëgg la waaw foofu bi ahad daal ginnaaw gis lu ndey gis lu bàyyi dafa nga jëm ji dëgg la mooy ndey mooy bàyyi mooy léppam da sa taawu bàyyi mm-hmm. mm-hmm. sa mag mm-hmm. sa lépp yéen bo na xam xam nee nañ boo ne bu sama bàyyi doon dund mu yóbbu ko màkk nga dem gis lu ndey gis lu bàyyi sa taawu bàyyi ne jonn yóbboo sa bàyyi màkk nga wax du dëgg dëgg la kon lépp lu mu waroon def ki ndey bàyyi tan raw ko da ko mat jëm ji yàlla da koy yokk yàlla da koy gën a jëm kanam barke bi sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf macha allah loolooy dëgg nag ah, ndax dañuy wax ne mag kabiru yarxam saxiiru wa saxiiru yaxtaram kabiru mag day yërëm ndaw waaye ndaw mi day respecté mag te taawu kër mooy baay dafa am benn affaire bu reelu boo xam ne Cheikh Ibrahima ñas ak magam ju tedd jooju ñu koy wax Baye Khalifa mooy papa yi Ahmed Niass dafa ñëw Baye yëkkati addee ju bëri jox ko Baye Khalifa ba ko joxee Baye Khalifa ne ko Baye Khalifa ne ko ah lii nag mu ne ko dama lay wax de. rak lu mu am jox ko magam lu mag am mu bàyyee ko ko Baay Xalifa na leen déglu leen li leen Cheikh Ibrahima Niass wax mu répété waat ko kon nag maa ngi koy digalaat moom Baay na ko baayam ma ngi nii ndayam a ngi nii kilifa a ngi nii kilifa du tuuti soo ko jëlee rek teg ne mooy sa kilifa rek mu yokk ci kaw. macha allah kon nag ñu ngi ko koy dénk. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi.